بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw bu ñu santee suñu boroom tabaraka wa taala julli ci yonente bi aleyhi salaatu wasalaam ñu ngi dellusiwaat ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala di dajewaat ak yéen ci minbarul islaam suñu mbokk Cheikh Tidiane Diallo moo nekk ci xarala gi seen mbokk Ibrahim Khalil Lo ak docteur Mohamed Ahmed Lo ñoo nekk ci micro bi mbokk yi ni ngeen ko xamee buntu waxtaan wi nga xam ne ci lañu nekkoon te moo doon qawaid fi maarifati al bidaa ay tënk yoo xam ne ku ci sukkandiku yàlla mën naa dogal nga mën a xàmmee lan mooy ay biddaa xam ngeen ne jot nañ cee romb ci ay tomb yu xaw a limu ba règle yooyu nga xam ne mooy xawaayit yi sax moom daanaka mën nañoo wax ne egg na waaye nag mu am yeneen yu ca topp yoo xam ne moom moo ànd ndax tomb yooyu buñ ko xamee ba noppi nag kan naka la ñu def ba xam ne nit kii loolu ñu doon wax ci régal yu ñuy xamee biddaa ak muy ay jëf wala muy ay wax nu ñuy mën a xamee ne nit kii mi ngi jëfe loolu bañ man koo askane nituk biddaa muy tomb nag bi ci gën a am solo boo dee seet ndax dafa jëm ci sa digganteek sa moroomum doomu aadama bi nga xam ne ni ngay jëflanteek moom loolu daf cay war a feeñ ndax nit ki su fekkente ne nekk na nit koo xam ne ci bidaa la nekk nekk gu wér kooku am na taxawaay bu jullit war a am digganteem ak moom su fekkente ne itam la muy def nuru na ko waaye nag euh, wérul bu wér ne mënees na ko askane ne ku tënku ci ay bidaa la loola itam jullit da koy war a xam ndax mu bañ a juum ca na muy jëflante ak moom kon nag pour bañ a jël ci waxtu wi lu bari ñu ngi leen di bàyyee ak docteur mu dem ci bunt boobu nga xam ne bu mat a bàyyi xel la bu am solo la bismillah bismillahi arrahmani irrahim in alhamda lillahi naxmaduhu wa nastaciinuhu wa nastaxfiruh wa nacuudu billahi min shururi anfusina wa sayyiaati acmaalina man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala haadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allah waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan cabduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa asxaabihi ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu eh, di nuyu déglukat yi minbarul islaam eh, di delsi kon ni ko cheikh ibrahim waxe ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ak di ko eh, sant cant gu rafet fas yéene àggale kon li nga xam ne moo des ci liñ jotoona bàyyi xel ci bunt bi tomb bu mujj boobu ki nga xam ne xam na tënk yi weesu woon euh, xamiin wu leer dafay aajo woo am man-manub nag ponk yi ak tomb yim jàngoon mu mën koo appliquer xam kañ la koy jëfandikoo ak ci kan la koy jëfandikoo kon loolu dafay doon mbir moo xam ne mu am solo la léeg-léeg nga gis boroom xam-xam wala gëstukat wala jàngkat boo xam ne mën naa jàng ba xam li ñuy tudde xawaaidul usul ci usul yi lu mën a doon moo xam ci wàllu pas la moo xam ci wàllu fiq la jàng ko ba xam xawaayid ya bu baax a baax muy ponk ya ak tënk ya waaye bis bu jëfandikoo ko jotee nga gis lenn ci ay njuumte ngir jël ponk ba jëfandikoo ko foo xam ne foofa du palaasam mm-hmm. su ko defee loola day daal di jur njuumte bunt bi nag bala maa dugg danaa junj ci ne li muy jariñ moo di ñu xam ne asalafu saalix muy ahlu sunna wal li nga xam moom la ñu bari jort mu di defee ne ñoom ñu yàkkamti lañ ci gis ku njuumte ku juum ba ñu ne diw tàbbi na ci njuumte diw tàbbi na ci bidaa wala ku def njuumte bañ ne diw léegi yéefar la dañuy defe ne ñoom ñu yàkkamti ci loolu lañ fekk ne ñoom ñoom mboolem kuréel yi am kuréelu ahlu sunna jamaa ñoo gën a teey ci bunt boobu loolu moo tax ñu sonn ci masala moomu ñu def ko li ñu tudde tasil ay cosaanam ay bànqaasam yépp ñu delloo ko ci seeni cosaan mu dëppoo ak téere borom bi tabaraka wa ak sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ngir ñu mën a xam kan nag moom la ñuy teg ponk bi ci kawam ñu xam ne tàbbi na ci teenu biddaa ñu ne diw biddaa la diw mubtadi la diw nitu biddaa la aajowoo nan kon ñaari tënk aajowoo nan ñaari tënk benn tënk bu jëkk bi mooy an nazar fi xaali shaxs alladi waqaa minhu al ixdaas ñi xool jëmmi nit ki nga xam ne nee nañu moo sos ci diine nit kooku suñ ko jëlee xool ko dañuy gis ne mënta génn ñaari mbir benn muy lii wala muy lii mbir mu jëkk bi moo di an yakuna mujtahidan moo di nit ki nga xam ne tàbbi na ci sos ci diine mujtahid la ah mujtahid nag day dib garaat ndomb ak tànk goo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa moo ko takkal ka ko doon moo wax ne ida ijtahada alxaakim fa asaaba fa lahu ajraan wa ida ijtahada fa axtaa fa lahu ajrun waaxid ki nga xam ne xas na dem ba nekk mujtahid nga xam ne ku farlu lañ koy tuddee ci diine kooku su fekkee ne masala ñëw na mu jéem def lam man gëstu ba fa xam-xamam yam su fekkee ne dëppoo na ak dëgg kooku day am ñaari yool ndax yoolu coono effort bi mu def coono bi ak yoolu dëppoo gi mu dëppoo ak dëgg su masala ñëwee nag mu def efoor sonn waaye juum nee na kooku benn yool lay am kon daal ki nga xam ne xas na dem ba nekk mujtahid moom faaw rek day am yool kon loolu moo tax ñu xam aajo woo xam kan mooy almujtahid moomu kon loolu toujours noo ngi ci benn côté bi maanaam xool jëmmi nit ki lan mooy melokaanam suñ ko xoolee wax naa ne ñaari nit rek la mën a doon kenn ki mooy koo xam ne mujtahid la mujtahid nag mooy koo xam ne sonn na lool lool lool ci jàng xam-xamu sharia ca fañ ko war a jànge fañ ko war a ballaloo muy alquran ak sunna ba mujj bokk ci ñi ñuy tuddee ay raasi xóon ci xam-xam ñoo xam ne dem nañ ba seeni ndëggu dëgër bu wér a wér ci wàllu xam-xam ñooñu dañuy doon ñoo xam ne àgg nañ foo xam ne topp am lënt taxatu leen a jóg dañuy doon ñoo xam ne jéem a soppi téereb yàlla bi ngir dëppale ko ak seen bànneex taxatu leen a jóg kooka ka dem ba nekk mujtahid dafay doon koo xam ne daliil muy lu ñuy tegtaloo ci alxuraan ak sunna kooka la jiital ci lépp lépp lu mën a doon bépp wax bu mën a doon wala bépp jëf bu mën a doon suñ xasee ne alquran nee na wala yonent bi sallallahu alayhi nee na wax ja ca des day daldi sooy ak ku ko mën a wax ak fu mën a jóge ka nekk mujtahid ci sharia mooy koo xam ne saa boo xamee ne dëgg feeñ na day daal di nangu bàyyi lam nekkoon a ah, ki dem nag ba mel noonu sàkku xam-xam fa mu ko war a sàkkoo ba noppi yor melokaan yooyu su fekkee ne nag teg na ca aku ak njub aku ragal yàlla ba ñi nga xam ne ñooy boroom xam-xam ya di boroom sunna ñu seedeel ko ne kii day ku baax la kooka bu boobaa mooy ki nga xam ne su góor góorloo far juum kon njuum tam des ko koy jéggal mu am benn yoon waaye ngir mu gën a leer jooju jëmm am na yuñ koy xamee dëgg-dëgg kon yooyu war nañ ko gën a leeral tudd naa ko ci gàttal waaye faaw ñu leeral ko ñeenti mbir a yoo xam ne faaw mu daje ci moom bi ci jëkk moo di ida dahara lahu lxaq aqarra bihi wa rajaa an xataihi saa boo xamee ne dëgg feeñ na day nangu dëgg googu nangoo dellu gannaaw ca lam nekkoon won ne man dey maa juumoon waaye lii mooy dëgg li waral loolu moo di ne boroom xam-xam ak fu mu mën a àgg ci xam-xam ginnaaw du yonent ak lu mu mën a joxe ci coono ngir am xam-xam ak jumtuwaayu xam-xam ñu xam ne kooka du kuñ musal ci njuumte ginnaaw du yonent mm-hmm. loolu moo tax al imaamu Malik rahimahullahu taala dafa doon wax fekk bi muy wax mi ngi toog ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale mu ne kullun yuxadu min qawlihi wa yurad illa saaxiba hada al nekk say wax am na ci lu ñuy jël ak lu ñuy bàyyi ba mu des ki tëdd fii daal di joxoñ xabru yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa kon kenn kuñ musal ci njuumte ku dul ab yonent amut ginnaaw boroom xam-xam bi nag lu mu sori sori sori ci xam-xam faaw mu am ay njuumte bokk na ci ay melokaanam yu rafet sax bu yégee ne juum na rek mu daal di gaaw dellu gannaaw ci njuumteem loolu mu juumoon loolu dafay doon loo xam ne lu mënta ñàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day ne kullu bni aadama xataa bépp doomu aadama ab juumkat la bu bari sax lu muy juum wa xayrul xataa'iina at-tawwaabuun ñi gën ci ñi nga xam ne ñooy juumkat yi mooy ñi nga xam ne bu ñu juumee dañuy tuub li ñuy gën a xàmmeele nag ki nga xam ne dafa loolu ñu tudd mu di saabu bu dëgg feeñee mu dellu bàyyi lam nekkoon kooku bokk na ci ñi gën a mën a ràññee koo xam ne bànneexam la topp ak toppul bànneexam ibnu taymiya dafay nettali mu ne ana wa gayri kunna ala نقول بقول أهل البدع فلما تبين لنا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دار الأمر بين أن نتبع ما أنزل الله أو نتبع ما, ما وجدنا عليه آباءنا فكان الواجب هو اتباع الرسول لئلا نكون ممن قيل فيهم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا moom day reconnaître moom ibnu taymiya foofu mu ne man day maa keneen ku dul man nooyam ngir yin fekkoon sunuy baay ca lan nekkoon dan gëm sax di wax lenn ay wax yoo xam ne waa bi daa ñoo koy wax kon foofu dafay saxal ne moom ci jëmmi boppam jaaroon na ci biddaa mu ne nag waaye bin demee ba mu yàgg dëgg feeñ li yonent bi sallallahu alayhi wa indi bu ñu naan lii diwu ko andi lii kee ko andi ba mu yàgg nag la yonent ba sallallahu alayhi wa sallam nu nuy dox di dox ba xam ko nag na la ñaari mbir rekk la benn nu topp li yàlla wàcce wala nu topp leen fekkoon suñuy baay ak suñuy ne nag biñ xoolee nu gis ne li war mooy topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir nu bañ a bokk ci ñi nga xam ne alquran daf leen a ŋàññi wax ne suñ nee leen kaay leen topp waaye li yàlla wàcce ñu ne déedéet noonu dañuy topp li nga xam ne dañ cee fekkoon rek suñuy maam ak suñuy baay kon lii lu rëy rëy rëy la boroom xam-xam bu mag boo xam ne ñépp siiwee nañ ko ne kuy défendre sunna la kooku mënoon naa noppi rek jàll ña ko topp ci dundam doon ay junni junni nit waaye loola xañu ko mu mën a toog ci digg ay taalubeem di leen yëgleel ne ah man kat lii ngeen may gis lépp ak di ma askane ci sunna ak sama góorgóorlu gi yëg leen ne ci bi daa laa nekkoon ci ngéri bàyyi ak maam ya laa nekkoon ba mu yàgg sunna feeñ ma door a jàpp ci sunna kon loolu lépp njiit loo xam ne mbooloo ngi topp ci yow ak képp ku mën a doon koo xam ne yaa ngi xool sa diggante ak sa boroom sa diggante ak sa diine mbir mu demee nii war nga ko bàyyi xel ibnul qayim muy taalibe bu siiw bu doonul ki gën a siiw yitam ci ndongo yi toppoon ibnu ibnu taymiya ibnul qayyim boroom xam-xam bu siiw la imaam la sax ci fànn yu bari ci xam-xam lu jiitu mu ñëw ci ibnu taymiya buñ fàtte ni ibnul qayyim doonut ak gone goo xam ne ibnu taymiya daf koo jël jàngal ko yar ko formé ko toqi ko mu mujj mel nangam waaye da doon boroomu xam-xam boo xam ne dafa xuus ci fànni xam-xam yi moo xam xam-xami arab la wala xam yi fiq wala xam yi usul wala xam-xami sax munazara ak li ñu tudde jadal maanaam mën a werante demoon na ba not ko sax jafe da daan wër di wupp ay làmb yàlla di ko wommat ba mu agsi ci ibnu taymiya fekk melokaan woowu meloon ci xam-xam mu toog déglu ko dégge ci moom lu yees ay ruq yoo xam ne musta dégg ku koy wax te ndekete ruq yooyu moo dëppoog alxuraan ak sunna mu daldi ñëw nangul ko jariñu ci moom di sant borom bi tabaraka wa taala itam ci loolu kon lii mooy melokaanu koo xam ne su dëgg feeñee ak fu mën a toll ci xam-xam su yegee ne juum na day di bàyyi njuum te ñëw ci li nga xam ne moo jub loolu moo tax dafa mujj sax di bind di leeral li nga xam ne mooy pas-pasu salafu saalix di tontu sax ñi nga xam ne ñoo xuus ci bidaa ah, ba bind nuuniyam bu rëy boobu nga xam ne kenn la ci benn la ci téeréem yu bari yi mu bind mu doon boo xam ne daf cee leeral pas-pasu ahlu sunna wal jamaa tontu ci it mboolem kuréel yi ci biir nuuniya boobu <clears throat> ibnul qayim nettaliwaale na ci fa ko ibnu taymiya fekkoon ak fi ko yóbbu ci ndimbalul borom bi tabaraka wa taala mm-hmm. ma ngi fay wax ne yaa qawmi wallahi alazimi nasihatan min mushfiqin wa axin lakum micwaani jarabtu hada kullahu wa waqaatu fi tilka shibaaki wa kuntu daa tayaraani mu ne eey yéen nit ñi maa ngi giñ ci yàlla ne lii ma leen di jox jël leen ko ak laa la laa biire gu jóge ci koo xam ne ku leen yërëm la di seen mbokkum jullit moo xam ne daf leen a bëgg a dimbali min mushfiqin wa axin lakum micwaani bëgg leen dimbali ndimbal lu bari mu ne jarabtu hada kullahu lii ngeen nekk xeeti bidaa yi ak xóot-xóot yi ak roq yi ñal yi yooyu yépp nee na essayé naa ko dugg naa ci wa waqaatu fii tilk tilka shibaaki nee na mbaal yooyee fiir ya tàbbi woon naa ca biir wa kuntu te ba ma nekkee ca biir mbaal ya ñu fiir ma ba jàpp ma nee sax kontante laa ci doon àndal bay bëgg a naaw defe ne li ma gis mooy dëgg mu teg ci ne xatta ataaxa liya alilaahu bi fadlihi man laysa tujziihi yadi wa lisaani xabrun ataa min ardi xaraana fa yaa ahlan bi man qad jaa min xaraani nee na ma nekk ca loola ba yàlla dogalal ma ci ngëneelam koo xam ne wax dëgg yàlla sama loxo ak sama làmmiñ mënu koo fay mënumaa bind lu ko fay mënumaa wax ci sama làmmiñ it lu ko fay nee kooku mooy kan mu ne benn boroom xam-xam bu rëy boo xam ne mi ngi jóge ci xaraan mu ne ibnu taymiya yi la bu ñuy wax xaraan la tudd ci dëkk ca Shaam mu ne ahlan maa ngi yaatal ci ki nga xam ne moo dikk jóge xaraan fallahu yajzihi bima huwa ahluhu min jannati almawa maa ridwaani mi ngi koy ñaanal mu ne yàlla na ko yàlla fay lam yeyoo ci jannatul mawa ajjana ànd ngërëmul sunu borom tabaraka wa taala axadat yadaahu yadi wa saara falam yarim xatta araani matla al imaani dafa mel ni ñaari loxoom dañoo ñëw téye sama loxo bu dëgër bàyyiwuma bàyyiwuma boon ma dëgg-dëgg yi lan mooy ngëm yàlla kon ànd ak xam-xam bu bari bi mu nekkoon ak li mu doon xuus ci xeeti fànni xam-xam taxul woon moom ibnul qayim mu jàpp ne ba lu jiitu muy dajeeg ibnu taymiya ndekete am na yeneen yu desoon yoo xam ne ci imaan la bokk yoo xam ne leerul woon ci leerul woon ci boppam kon nii la mujtahid di mel saa boo xam ne dëgg feeñ na rek mu daal di bàyyi la mu nekkoon ci ay neen loolu moo tax al aima al arbaa muy imaam yi nga xam ne ñoom la ñuy topp ci wàllu fiq muy al imaam abu xanifa wal imaam malik wal imaam shafi ahmad ak ñu demee ne ñoom kenn ku ci ne jële nañ ci wax joo xam ne xëy na tëggiin ya mën naa wuute waaye moo di ida saxal xadiisu fa huwa madhabi saa bu xadis wéree loolu mooy sama mooy sama ngir loolu moo tax al imaamul bayhaqi léeg-léeg da nga gis benn xadis boo xam ne dana juuyoog waxi shaafi yi waaye al bayhaqi muy imaam bu mag ci ngirum shaafi yi dafay daal di wax ne xadis bii mooy ngirum shaafi yi donte moom ci boppam wax na lu juuyoo ak moom ndax kat moom nee na woon su xadis wéree loolu mooy sama ngir te xadis bi wér na bu fekkoon ne danoo dellu ci siiratu salaf jàng ko bu baax a baax muy asalafu saalex mag ñu baax ña jiitu woon danañ gis misaal yu bare bare bari ci seenu dellu seenu dellu ci dëgg kon loolu dafay wone ak sell akuk mbaax akuk njub kon kooku mooy tomb bu njëkk bi mooy saa bu dëgg feeñee mu bàyyi la mu nekkoon dellu kooku ci mandarga yi nuy xamal kan mooy almujtahid ci la bokk ñaareel ba an yattasifa bil insaaf ida dahara lahu alxaq qabilahu min ayi ahadin kaana bila mu am li ñuy tudde insaaf mooy maandu fu mu gisee dëgg rek nangu ko du jàpp ne dëgg dafa am genn wet gu muy jóge goo xam ne su fa jógewul du mën a doon dëgg waaye su jógee feneen euh, euh, Euh, su jógee fi wérab sàngam rek doon dëgg waaye feneen fu jóge fu mu mën a doon du doon dëgg ndax bokk na ci usuli ahlu sunna mooy qabuulul xaq min ay masdarin kaan fu dëgg mën a jóge rek ñi nga xam ne ñooy nitu dëgg ñooy ñu maandu dañuy nangu dëgg googu bu ñu fàtte ne abu hurayra radiallahu taala anhu jariñu na dara ci xam-xam ci iblis hmm. te su fekkoon ne euh, dëgg bu jógee foo xam ne fu salte la wala fu ñàkk solo diisu ko nangu kon diisul nangu dëgg ci iblis wax dëgg yàlla mm-hmm. ah abu hurayra eh, eh, benn bis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen ne daana gardeloo eh, alal ji nga xam ne ci la ñuy denc asaka yi mm-hmm. muy baytul maal benn bis mu jekki ba guddi mu gis ku ñëw di ci sàcc mu jàpp ko mm-hmm. mu jéggalu ko damaa ñàkk dama yor njaboot damaa def nangam nangam mu bàyyi ko mu dem ca beneenee ba mu dikkati mu jàppati ko ba ci ñetteel ba nag mu ne ko duma la bàyyi moom fii laa lay téye ba suba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis la Euh, ñu jàpp la euh, faj teg teg la li war ci yow ndax mm-hmm. ñetti guddi la te li nga sàccoon bëkk biig mm-hmm. loola waroon naa mën a doy waaye ginnaaw yaa ngi ñëwaat di ji ma fa baat kon léegi yow ku topp sa bànneex nga wax a wax Abu Hurayra ne ko dama lay téye mu ne ko kaay ma jàngal la loo xam ne soo ko waxee mm-hmm. ci ak guddi seytaane du la mën a lor maanaam iblis du la mën a lor ba ba ngay yeewu ba ba ngay yeewu ci suba gi soo xëyee wax ko itam iblis du la mën a lor ba ba ngay gont mu ne ko loola lu mu doon mu ne ko ayatul kursi ayatul nee na bi mu ko defee Abu Hurayra ñu xiir ci aw yiw lañ saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jàpp ne lii mu ko wax lu am njariñ la te xëy na kii xam lii yombul nit ku baax la mu bàyyi ko mu dem bi mu xëyee nettali ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu agsee bi mu ko daataan nettali rek mu ne ko sa euh, ki nga jàppoon biig na ngeen mujje mu nettali ko ko mu ne ko bi mu ko waxee ba agsi ci foofu mu ne ko sadaqaka wa huwa maanaam ab waxkatu lu amut la waaye googu yoon moom wax na dëgg mhm. googu yoon wax na dëgg daal di ne ko innahu iblis ne ko kooku nga jàppoon kooku seytaane la mooy iblis mhm. kon eh, ayatul kursi yi ak musalam doomu aadama ci seytaane mën nañu wax ne abu hurayra mi ngi ko jariñoo ci iblis mhm. kon foofu la istinbaat bu xóot boo xam ne ahlu sunna wal jamaa dañuy wax ne dëgg fu mu jóge fu mu mën a doon fu mu mën a doon rek jëlal ginnaaw dëgg la ginnaaw peese nga ko ci alxuraan ak sunna mu dëppoog alxuraan ak sunna fabal jërul seet fan la jógee ak kan moo ko wax ak diw moo ko wax loolu moom la ñuy tuddee al insaaf mm-hmm. al xikmatu daalatul mumin eh, adna wajadaha fa huwa axaqu biha mm-hmm. la baax daal nag ki baax jàpp ne moom fu mu ko fekk moo ko moom mm-hmm. ñetteel bi moo di an yattasifa bil wara fala yulzimu axadan bima tawassala ilayhi bi ijtihaadi ñetteelu tomb bi ñuy xamal kan mooy taxit bi ñu ñuy tudde mujtahid moo di ku sàmm lay doon bi mu góor góorloo jii ma xam ci masala moo xam ne xëy na alxuraan ak sunna ko ca moom mu jii ma góorgóorlu ci ittihaadam ci ak farloom ba jàpp ne mbir mi de nii la war a doon kooku du ñëw ci kaw nit ñi ne leen faw lii ma farlu ba gis ko te gisaguma dalilam ci alxuraan ak sunna faw yéen ngeen jël ko jafe ko déedéet ak seenu maandu te day weesu foofu moo tax cheikh mohamad nasir din al albani rahimahullahu taala muy wax ne euh, wa xasbu almustaxsin in kaana mujtahidan an yajuusa lahu alamalu bima staxsana wa an laa yuaaxidahu allahu bih amma an yattaxida annaasu dalika shariatan wa sunnatan fala ki nga xam ne dafa jiim a góorgóorlu rekk jàpp ne nangam lu rafet la mu di ko jëfe nee na kooku doy na ko mu dagan mu jëfe loolu daganu jëfe loolu loolu war na koo doy sëkk xëy na yàlla mën ko caa bañ a jàpp man koo bañ a jàppe loola su même su juumee mu ne waaye nag mu jël nit ñi ne leen lii ma fexe ba fent ko ci sama góor góorlu def leen ko mu nekk seen sharia ngeen di ko topp ngeen def ko seen sunna di ko topp nee na déedéet foofu moom yëf yi àggu fa loolu moo tax abu bakar as siddiq ak omar ibn al xataab radiallahu taala anhuma ak sax abdullah ibnu mas'ud ak ñeneen ñu bari ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain ñenteel bi ci yi nga xam ne ci la ñuy xàmmee mujtahid boobu moo di an laa yajcala maa axdasahu bi ijtihaadihi nga xam ne moom la sos ci ak farloom de eh, bu mu ko def mu nekk di loo xam ne day wax ne lii kuy ànd ak man ci ngay ànd ak man kuy tàggook man it ci ngay tàggoog man képp ku ku dëppook moom daal kooka mooy àndandoom mooy xaritam mooy mbokkam képp ku juyoog moom kooka moo dib noonam déedéet ku sellal du mel noonu ku màndu du mel noonu li feek mbir mi nag mu ngi doon mbirum ijtihaad nga xam ne ci wàllu ak góor góorloom la sukkandiku waaye sukkandikuwut nag ci texte boo xam ne dafa jóge ci alxuraan wala mu jóge ci sunna waaw jamono yoo xamee ne nag sukkandiku ci texte ñëw na su boobaa loola la ñuy wax su boobaa koy àndal nga ànd ak moom ci loola koy tàggool nga tàggoog moom ca lool moo tax ibnu qayyim ibnu taymiya muy wax fii mu ne ñi nga xam ne ñoom la ñu tuddee alxawaarij nga xam ne ñu gaaw lañ ci yéefarloo ab jullit nee na alxawaariju tukaffiru ahlal jamaa ñi nga xam ne ñooy ahlu sunna xawaarij yi dañ leen di yéefarloo أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الإمام ابن تيمية mu ne ñi nga xam ne ñoom la ñu tudde alxawaarij mu ne tukaffiru ahlal jamaa nee na ñooñu dañuy yéefarloo ñi nga xam ne ñooy ahlu sunna wal jamaa wa kadalika almuctasilatu yukaffiruuna man xaalafahum nekke noonu ñi nga xam ne ñooy kuréel bi ñu tuddee almuctasila nee na ñoom it dañuy yéefarloo képp koo xam ne ci yoon ak ñoom ah, kon nit ak yàkkamti ci lool loolu melokaani nitu bi daala waaye nekkul melokaanu ahlu sunna wal jamaa asalafu saalix képp ku jàng seen siira jàng seeni wax ci bunt boobu dana gis ne ñoom ñoo ëpp ëppoon doomu aadama yépp ak wattandiku ci buntu yéefarloo doomu aadama wala te doomu aadama ne mi ngi ci biddaata fekk nekku ci duñ yéefarloo kenn lu dul koo xam ne charti yi nga xam ne mooy tax doomu aadama ji nekk yéefar daje na ci moom kon jamono yoo xam ne ñëw nañ ba ne diw yéefar la su boobaa ñoom du ñoom ñoo ko takfiir waaye ñoom kay dañoo nett li dañoo nett li li nga xam ne mooy la am kooku xikaayatun lil waaqia mais nekkul loo xam ne ñoom ñooy topp nit ñi di leen takfir su boobaa ñoom yéefarloo wuñ ko waaye sharia ci boppam moo àtte ne kooku yéefar la eh, loolu nag <clears throat> dafay mbir moo xam ne képp kuy jàng dara ci sharia da nga ko xam téere fiq yi sax boo ubbee da ngay gis bunt boo xam ne buntu baabu ridda lañ koy tudde hmm. buntu tubbi soo jàngee gis nee ne la ku def nangam ak nangam tàbbi na ci kéefër ku wax nangam ak nangam tàbbi nga ci kéefër kon su boobaa sharia mooy yéefarloo kooka waaye du caagi ni e, nit ki ci jëmmi boppam moo ko yéefarloo ñi nga xam ne nag ñooy bi daa bokk na ci seen melokaan moo di ñoom dañuy sos xëy na ci seen ittihaad su fekkee ne e, dañuy dañ koo tudde ittihaad ñoom sos seen yëfi bopp tër ko ba àggal ne képp ku ànd ak noonu ci lii yaa ngi ci njub képp ku tàggoog noonu daal ngay dugg ci kéefal hmm. wala yaasu billaah wa ahlu jamaa yooyu melokaan sori na leen lool ñoom buntu buntub takfiir hmm. ñi ci gën a mën a wattandiku ci lañ bokk wala ñoo gën a wattandiku ñépp ci boobu bunt hmm. kon ñeenti charte ñooñu ñeenti bu ñu dajee ci nit ki kooku la ñuy tuddee almujtahid jamono yoo xamee ne nag ma ngay jiima sos ci diine dara te fekk charte yooyu moom melut noonu kon bu boobaa kooku la ñuy tudde mubtadi kon suñ ko dee baamu ci gàttal dañuy wax ne mooy koo xam ne saa bu dëgg feeñee du nuur ci ay neen waaye day daal di bàyyi neen ya dellusi ci dëgg jamono yoo xamee ne itam dëgg feeñ na ak fu mu mën a feeñe daf koy nangu kooku mooy ñaareel bi ak itam du jël bidaam def ko loo xam ne rekk ci lay woote boo ko seetloo wooteetu sax far ci lislaam waaye ci biddaa ba lay woote la sos ñeenteel ba moo di du jël la sos nga xam ne kuy ànd ak moom ca ngay ànd ak moom kuy tàggoog moom it ca ngay tàggoog loolu du seen melokaan kon loolu mooy kenn nit ki bu fekkee ne dañuy xool melokaanu nit ki waxoon nañ ne ñaar la kon kenn ki mooy al mujtahid ki nekk mujtahid nag kooku wax naa ne kon am na ndomb ak tànk ndax su farloo ba yàlla dogal dara sosoo ca farloo ga it lañuy ñuy kay mooy xanaa tudde ko njuumte waaye bu boobaa disul wax ne kii kat mubtadi la mm-hmm. ndax ya daje ci moom moo ko waral la daje ci moom ci xam-xam mm-hmm. ak melokaani jikko ak melokaani xam-xam mm-hmm. loolu mooy tax jooju jëm kenn du wax ne mubtadi la ñaareel bi nag nit ka ca des mooy an yakuna muqallidan mu doon koo xam ne aggul ci ittihaad waaye moom day roy day royaate kii roy nag ñaar la kenn ki mooy koo xam ne am na xam-xam gaa waaye nag bi mu amee xam-xamit dafa ñëw rek topp keneen itteem guddi ak bëccëg ak yëngatoom ci xam-xam mi ngi yem ci di ballalu ci waxi kam topp waaye bëlli lootul ci alxuraan ak sunna hmm. ak itam di gëstu ay lënt yoo xam ne moom lay dëgërale lam nekk hmm. kooku foofu la mbiram toll hmm. ku mel noonu nag amul ngànt doonul ku ñuy jéggal ci boroom xam-xam yi ginnaaw am na xam-xam ba war a mën a ballalu na ballalu fi ñu war a ballalu muy alquran ak sunna lu dul muy topp ay lënt na jàpp ci alquran ak sunna ni ci gëstu su ci gëstuwul na xanaa soxlawoo di gëstu leneen ba tàbbi ci biddaa su boobaa kooku de lañ koy tudde beneen xaaj ba ca des mooy ñoo xam ne li ñuy tudde al awaam koo xam ne moom jàngul ferul baa xàmmewul am lënt xàmmewut aw lay lim def daal mooy gis na koo xam ne rafet na ci moom njort mu topp ko ah bu ko toppee ci biddaa kooku amul benn werante ci ne moom ci jëmmi boppam ku réer la ndax ko topp ku réer bu ngeen àndee da ngeen di mm-hmm. waaye nag amul benn werante itam ne ak réeram ak réeram ci réeru ki xam ba noppi mm-hmm. bàkkaaram itam amul benn werante ci ne kam topp dana yanu dana yanu lenn la mm-hmm. mooy gàddu lenn la kon loolu mooy daal bu fekkee ne dañuy xool ci melokaani jëmm ji muy an nazratul ula nuy xool jëmm ji ji nu bëgg a xam ndax daa tàbbi ci biddaa wala tàbbiwul ci biddaa wala danañ ko tuddee mubtadia borom biddaa wala duñ ko ko tuddee dan koy xool kon ci anam yooyu ndax moom mi mujtahid la ñu xool melokaan yi ñu tudd su fekkee ne nekk na mujtahid kon ñu xam ne ah kooku di kon dafa juum ginnaaw dafa juum nag kon am na benn yool comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxe nekkul mujtahid waaye dafa nekk muqallid ah kon kooku moom it boobu àtte la yor. Hmm. ci biddaa lay tàbbi su fekkee ne dafa topp nit ci biddaa. Hmm. waaye nag lu mu gën a jege xam-xam responsabilité am di gën a rëy. Hmm. soo xamee ni xamul dara itam nag dara am responsabilité ndax dafa dem toppi ku réer. waaye nag ak réeram kam topp mooy gàddu leen la. kooku mooy aldaabitul awal daabitu ñaareel bi lu gàtt la moo di an nazar fi xaali almasala allati waqaa fiha al mooy xool masala mi nga xam ne liñ sos ba tuddee ko ijtihaad wala ñu tudde ko bidaa ci masala moomu la amee ndax foofu euh, lan lañ ko fi tudde ndax dañ ko tudde ijtihaad wala dañ ko tudde bidaa kon foofu bu ñu xoolee danañ gis ne résultat bi ñaari mbir rek la ñu mën a jox benn bi an takkoona min masaa'ilil ijtihaad benn bi mooy mu bokk ci masala yi nga xam ne nit ki sañ na ci góorgóorlu ci diineem bi maanaam sañ na ci ittihaad bépp masala boo xam ne masalam ittihaad la mooy masala yoo xam ne texte dafa ñëw ci yenn yi yeneen yi ci des texte ñëwu ci wala yenn yi texte bi jot na la wala jotu la masala yi nga xam ne masala yi ay furoo la yooyu ki ci juum kuñ jéggal la teyit ku am ab yool la comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa waxe su fekkee ne moom ca ñeyeeyoo ijtihaad ci la bokk nag waaye du ko jóg rek it nag mm, ne faaw damay damay xool ci texte yi génne ci sama ijtihaadu bopp déedéet mm-hmm. ñaareel bi an takuna min al masail tawqifiya allati la ijtihaada fiha mm-hmm. beneen côté bi mooy mu bokk ci masala yi nga xam ne yooyu buntam ubbi luñ ko nit ñi mm-hmm. ngir ñu di ci participer boobu bunt la boo xam ne liñ ci aajowoo lépp yàlla daf ko indi ci ak alquran ak ci sunna mu leer nañ comme masala yi nga xam ne dafa jëm ci usulu diin kenn sañ te ñëw ne damay ijtihaad ci wàllu aqida wàllu pas-pas ngir sosal nit ñi loo xam ne lu ñu war a fas la kooku boo ko defee ci biddaa ngay tàbbi waaye kenn du ko tudde ijtihaad boo xam ne da am benn yool wala ñaar nekk noonu tashriul ibadat jekki ba mu yàgg nga sos ay jaamu yàlla yoo xam ne yu amul woon la boobu bunt yàlla ubbilu ko kenn tashri moom yàlla moo ko jagoo bëgg ubbi bunt boobu ne kaay leen ma fental leen ak julli goo xam ne yàlla euh, farataalu ko santaanewu ko yonente ba sallallahu alayhi wa sallam ak i saxaabaam suñ dikkoon taxaw tey dañ leen di laaj gii julli ngeen di julli gu mu doon jamono yu loolu amee foofu boobu bunt du buntub du koo xam ne daf ca ittihaad ci xalaatu boppam di jiima tër ay jaamu yàlla wala muy ma tër ay masala yoo xam ne ci masala diine la bokk kooku ku réer la kuy réerali la waaye jàpput ci loo xam ne lu dëgër la Hmm. dadi nag buñ xoolee tomb biñ junjoon ci gannaaw danañ gis ne ki nga xam ne dem nañ ba gëstu ba xam ne moom tàbbi na ci biddaa hmm. ba mënees koo tudde mubtadia hmm. kooku doonatul mbir mu woyof loolu moo tax ahlu sunna ñu sonn ci tër eh, règlement règle yi ngeen gis mu doon yoo xam ne aw jàngin wu xóot la loolu moo tax ñu tër ko ngir ki nga xam ne moo yeyoo ñi atte ne mubtadi la moom dong la ñuy atte kii ci bi daal la dugg ki ko yeyowul kenn du ko ko atte hmm. ndax suñ ko ko xasee atte nag day am yeneen yëf yu ciy tegu yooyu mooy lan ba ci jëkk moo di annahu laysa min ahli sunna hmm. ginnaaw xas nañ atte waa bi daal la hmm. kooku bokkatul ci waa sunna kon méthode am ak doxaliinam dafa juuyoo ak doxaliinu ahlu sunna kooku kenn du ko jéggal ci nit ñi maanaam nit ñi duñ ko jéggal njuumte am hmm. duñ jàpp ne kii dafa ijtihaad am na ab yool wala mu am ñaari yool déedéet su boobaa dañuy wax ne kii ci bidaa la nekk hmm. ndax dafa juuyoo ak waa sunna hmm. loolu nag lu am solo muy xam mën manhaju nit ki ak méthode bi mu xàll bëgg cee jaar ndax léeg-léeg gis koo xam ne am na njuumte te fekk imaam la boo xam ne ci ay matu sunna la bokk maanaam manhaj ba mu xotti usuul yam jël fas ca yéene jaar loolu mooy doxiinu ahlu sunna wal jamaa waaye dana dem ba mu yàgg mu juum su ko defee ka xam doxiinam xam asloom dana xam ne kii dafa juum fii dafa jàdd xàll wi mu xalaloon boppam su boobaa ñu ne kooku teem la loo xam ne borom bi tabaraka wa taala dana ko ko jéggal waaye du tax ñu daal di jàpp ne mubtadi la loolu nag wa wuute na ak ki nga xam ne moom dafa ñëw xàll wi mu tër nga xam ne ci la départ fas ci yéenee jaam boo ko seetloo xàllu bi daa kooka moom dañ koy àtte ci kem lam tëralal boppam kooku daanaka da ngay wax sax ne su defee loo xam ne lu dëppook alxuraan ak sunna la bu boobaa loolu njuumte la ci côtéem ndaxte nam waroon a doxee mooy doxin woo xam ne day juyoo ak alxuraan ak sunna ndax xottiwul ngirum alxuraan ak sunna jàpp ca day mel ne alxuraan ak sunna doyatu ko kon loolu lu mat a xam la mën a xëju nit ki ak usul yi muy doxee ci lañ koy mën a sukkandiku ngir àtte ko mooy tax mu jàdd lam loon boppam ñu ne ak ah, kii di juum na fii njuum loolu njuumte loolu xëy na dinañ ko mën a jégg loolu moo tax dangay dem ba ci yoo xam ne ñu mel ne alxaafis ibnu xajar lu mel ne al imaamu nawawi ci seeni téere léeg-léeg nga gis ay masail yoo xam ne ci wàllu xam-xam da ngay gis leen ci ay masala ñu am fa njuumte waaye loolu du tax ñu daal leen di atte wax ne ñii ci ahlul ahwa lañ bokk wala ñetti ci ahlul bidaa ci lañ bokk ndax xam nañ usul yañ déparé xam nañ nañuy doxee itam ñaareel ba mooy gannaaw boo xamee ne atte bu njëkk bi te loolu nag ab xukum xaas yi la mooy atte bu bu réeréy la moo di nit ki ñu wax ne bokkatul ci ahlu sunna wal jamaa mm. ñaareel bi moo di yu tabaq alayhi ahkaamul mubtadia atte yi ñi atte waa biddaa bu boobaa dañ ko koy atte comme war koo gàddaay mm. eh, kooku ci atte yooyu la bokk mm. gàddaay ki nekk ci biddaa nag ñaari mbir rek moo koy waral euh, mooy ngir jàjj ko su fekkee ne yow sa gàddaay ko maanaam sa bàyyi ko bañ a jëflanteeteeg moom bañ a waxateeteeg moom bañ a toog ak moom. Hmm. Euh, boo xoolee lu bari ci bind euh, salafu saalix da nga gis. Hmm. ñuy faral di bind ci li ñuy tuddee xajrul mubtadi hmm. di wax bu leen toog ak ñoom bu leen wax ak ñoom suñu waxee ak yéen bu leen leen tontu. loolu fekk na liñ ci jublu ñaari mbir yooyu moo ko waral. benn sa gàddaay ko day am njariñ. maanaam daf koy jàjj. ah ku toll ni diw. bàyyi ma nangootu la wax ak man nanguwutuma nuyu su ma rombee sax suma ko nuyoo day waaxu dem kooku daal jaar na bàyyi lii ma nekk delluwaat su fekkee ne sa tolluwaay àgg na foofu kon bu boobaa gàddaay ko day jaadu ci yow wala beneen bi tax ñu gàddaay ko mooy wattandiku wattandiku ko moo di ragal a tàbbi ci la mu nekk su fekkee ne wóolu woo sa bopp ba jàpp nga ne soo ko jegee wala nga toog ak moom wala nga wax ak moom mën na laa xëcc ba dugal la ci la mu nekk kon koo ko sori ko kon ñaari mbir yooyu rek mooy tax ñu gàddaay waaye su fekkee ne soo ko bàyyee euh, sa jeexital ci moom amul solo maanaam yëgul ne sax bàyyi nga ko mm. wala yow dem nga ba sa xel dal na alhamdulilah ci jàpp nga ne moom mi mënatulaa xëcc yóbbu la ci biddaa kon bu boobaa jaxasoog moom sax tey jaadu ndax nga man koo woo bil xikma jim koo indi ci njub ñetteel bi ci liy war sa diggante ki nga xam ne dem nañ ba àtt ne mubtadi la kooku moo di daawatuhu ila sunna mooy woo ko nag ci sunna bu boobaa ginnaaw xas na dem ci biddaa te mbokkum jullit la ala kulli xaal ndax demut ci kéefër ginnaaw àggagul ci kéefër kooku jéem koo laa biir ngir yàlla ndax mu delsi ci sunna loolu bu boobaa day daal di doon itam sa waru gar waaye nag ci kaw yow mi koy woo nga dal xel ci ne mënulaa xëcc moom ba yóbbu la ci biddaal waaw kon loolu day dellusiwaat ca euh, tomb bi jàlloon muy xajrul mubtadi ñeenteel bi it moo di taxdiru naasi minhu jamono yoo xamee ne dem nañ ba tuñ nag aw aayam ak booteem su boobaa nag wattandikuloo nit ñi jooja jëmm dafay doon loo xam ne lu jaadu la lu mel noonu nag dafa doon loo xam ne lu aaje lu aaje bàyyi xel la doonut lu ñuy gaaw a àgg ndax ku dem ba naagu ci nit ki rek moom mooy wax ne diw na ngeen ko wattu bu leen ko jege bu leen ko wax ak moom bu leen jëflanteeg moom ndax ku jëflanteeg moom mën na laa yóbbu ci lam nekk mhm. te lam nekk doonut loo xam ne lu jub la mhm. lii daal kon lenn la ci ay tomb mhm. yoo xam ne Euh, jàpp nañ ne dana war a mën a euh, joxe lenn ci ay lumière ci bunt bi euh, xëy na borom bi tabaraka wa taala mën na ci baaxee lenn ci ay jaamam bu ko soobee comme ni ma ko waxee woon ci tàmbalikaay bi lii du samay wax mm-hmm. waaye sama dajale la mm-hmm. ci boroom xam-xam yi nga xam ne ñu am itte lañ ci bunt bi nga xam ne lu bari ci nit ñi dañ koo neenal mm. wala dañ koo sàggane wala seenu gëstu ci xam-xam dañ ko jëmale ci yeneen i boor jëmale wuñ ko ci bii mm. te fekk salafu saalix liñ ci bind ci ay téere bari na lool ba jéggi na dayo mm. euh, ci biir loolu ci lañ ballu tànn li nga xam ne moom moom lañ tër mu doon ay xam-xam yoo xam ne yu xóot lañ hmm. aw ci bunt boo xam ne manees na cee xamee lan mooy bidaa ak lan moo dul bidaa hmm. mën nañ cee xamee kan moo bokk ci waa bidaa ak kan moo bokkul ci waa bidaa hmm. ndax xëy na jullit bi mën cee jógee amee ci ak maandute ba du àtte nit ki ne ci bidaa la nekk te fekk mu nekk ci sunna wala mu jàpp ne nit ki ci sunna la nekk ngir rafetu njortam ci moom te fekk ci biddaa la nekk yàlla rek a xam barakallahu fiik jazakumullahu xayran Euh, yaakaar naa ne euh, li ñu waxoon ne moom la ñu war a waxtaane tey muy ni ñu war a appliquer xawaarib muy régal yi nga xam ne moom lañu ñu déggoon ci waxtaan yi weesu nu ñu ko war a appliquer ci nit ñi jàpp naa ne loolu leer na ci biir waxtaan wi ndax ni mu ko waxee nit ñi ñetti xaaj lañ koy séddale ni mu ko leerale ku jëkk ki mooy almujtahid muy koo xam ne xam-xamam eggale na ko ci war a mën a ballulu attey lislaam yi ci alquran ak sunna mm-hmm. mu boole ci itam nag yor melokaan yi nga xam ne moom la war a yor ci wàllu maandu mm-hmm. ci bu juumee xam ne juum na saa bu demee ba gis dëgg itam xam ne lii mooy dëgg mu dellu gannaaw ca lam nekkoon fekk ci dëgg ga dëgg itam fu mu ko jógee rek mu bañ a xeeb foofa waaye nangu koo jël foofa ak ni mu ko leerale yépp loolu ku mu nekk ci moom kooku lañuy wax wax mujtahid wax na taxawaay bi ñu war a am ci moom kooku même su demee ba def loo xam ne biddaa la itam kooku dañuy jàpp ne dafa juum mu wax ku ñaareel ki mooy mu xallit mooy koo xam ne moom dafay roy donte xam na itam mën naa balalu waaye defu ko dafa am koo xam ne rek ci la wéer mbiram nu kooka doxee rek mu doxee noonu même bu kooka tàbbee ci njuumte mu ànd ak moom ci tàbbi ci njuumte loolu jàpp naa ne danse bi gën a rëy ñaare ci foofu lay faral di nekk ndax ku mel noonu ñaare duñ ko seetee nit ku topp bànneex lay doon du yam rek sax ci jël njuumte loola waaye dafay wutal ay lay njuumte loola yoo xam ne kaca tàbbi woon sax mën naa am bu ñëwoon moom du ànd ak moom ci lay yooyu mu koy layal ndax moom kooka mën a am njuumte la woon ci moom te yëgul woon ne daa juum waaye ki dem ba yëg ni njuumte la nag waaye bànneex bàyyi ko ci mu di ko wutal ay lay ngir di ca gën a bàyyi nit ña nga xam ne ña nga nekk ca njuumte loola ngir mën a am ay intérêt wala ay njariñ yu mu ca gis ci wàllu àddunaam kooku moom xatar bu rëy rëy rëy la ku mat a xàmmee la itam te ni mu ko waxee ñaare ku jàng lay doon ko xam mm-hmm. ba noppi nag topp bànneex ndax njàng dafa war a ànd ak yar bakkan boo jàngee te yëroo sa bakkan itam da nga gis dëgg ne dëgg ngee mais dox man caa dem jël ko loola dana la xaw a të mu wax ko ñetteel ki nag mooy ki nga xam ne moom alaam mi la maanaam moom daal al toppe rek la moom jàngut euh, te itam day toppe rek loolu nag bu ñu ko seetee ci suñ barab yi ñuy dund ak sax ci monde islamique bi ñoo ñu ñoo ci gën a bari mm-hmm. ndax ni ñu demee ba gëm nit ñi ne lislaam fokk rek dangay topp ci nit mm-hmm. ba nga xamante ne nit ñi jàpp nañ ne njullitum nit ki du mën a mat li fekk amul koo xam ne ca kooka la topp doon na neex lool fekkonte ne ñooñee ñuy topp dañoo topp yoonu alxuraan ak sunna di ca teg nit ña loola bu boobaa benn sikki du ca nekk waaye nag ba ñu demee ba toppe googe di nekk ak pal am ñoo xam ne dañoo gëm ne fokk dees leen a war a topp am ñu gëm ne itam fokk ñoom dañoo war a toppe ah foofu nag la mbir ma di nekk ndax borom bi def noonu wattabi sabila man anaaba ilayya toppal yoonu koo xam ne mi ngi del si jëm ci man waxul sax toppal jëmmi nit ki yoon wala wax nga xam ne moom la topp kon nag foofu itam dañ fi yégée na rek kon pour ñu mën a mucc ci tabbi ci biddaa mooy dañuy delsiwaat ci jàng ndax ki ci gën a loru mooy mii boobu ñu wax moom mooy moo ci gën a nekk victime moo ci gën a nekk daxiya moo ci gën a loru ndax day tabbi ci ay biddaa nekk ci ay coono ba noppi di wéy ci bànneexi keneen keneen di ko jariñu li ko mën a musal ci loolu rek nag mooy euh, jàng diineem ba xam ko jàng ko itam ci cosaan yi nga xam ne ca la cosaanoo muy alquran ak sunna mm-hmm. ñu xam ne diine moom suñu borom tabaraka wa taala dénkaanewu ko fenn kenn ku nekk daf la ko adressé directement mm-hmm. ndax dafa wax yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko qul ya ayuha nnaas inni rasulullahi ilaykum jamia waxal nit ñi ne leen man mii la yàlla yónni ci yéen ñépp amul ñoo xam ne ñoom la yàlla yónni ci ñoom yonente bi sallallahu alayhi wa ñoom képp ñoom nag ñu moom mbir ma war koo joxaat nit ñi ak nu mu leen neex déedéet waaye yonente bi sallallahu alayhi wa ñépp la adressé mm-hmm. kon loolu euh, ñu bàyyi ko xel bu baax a baax yëg ne lii laa biire rek lañ ci jublu mm-hmm. ndax doomu aadama gannaaw jaamu yàlla rek lañ ko fi indee mm-hmm. te jaamu yàlla gi ca yàllay fay mooy gi nga xam ne dëppoo ak sunna mu ngi mel ne kuy bay da ca àll bay bay boo sañoon la ngay bay doon loo xam ne boo demee ci kër gi mu mën laa jariñ mu ba ca doonum ñax kon nag ñu laa biir la nga fekk ba wattandiku ñax mi ñax mi li mu bari bari bari bari doonte gàncax gi lu néew la ci biiram it nga mën koo xàmmee ndax lu mu néew néew moo am jariñ kon biddaa bari na lool fi mu nekk waaye fexe ba xam luy sunna mhm. mën koo jëfandikoo loolu rek moo nu woon ci ñuy waxtaani bunt bi mhm. kon yàlla na ci yàlla defal euh, tawféq mhm. lépp loo xam ne jub na ci borom bi tabaraka wa taala ñu defal ñu man koo jariñoo lépp loo xam ne rëcc nañu ci ci wàllu njuumte itam borom bi tabaraka wa taala jéggal nu ko te xam ne lu baax rek la ñu yéene woon kon incha allah bu nu yàlla mayee yeneen jotaay mën naa am ñu exeg docteur ci mu leeral ñu ay yoo xam ne ay sikk ak i lor yoo xam ne jullit ñaa ngi koy dund fi mu ne te dara waralu ko lu may topp koo xam ne ñi ngi koy topp ay bida maanaam asaar yi nga xam ne jeexit yi nga xam ne dal na umma islamiya bi fi mu nekk ci loo xam ne la ko jur mën nañoo wax ne mi ngi ci biddaa mhm. ndax jàngoro bokk na ci lay tax nga ban koo faj nga xam fa mu woon mhm. kon nag ñu bàyyi leen ak docteur mu tàggoo incha allah mhm. ñu jox leen daje beneen yoon incha allah jazakumullahu xayran kon li ñuy ubbee moo di di ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu boole ñu tawfiq noonu ñëpp di sant di ñaanal itam mooy gannaaw bu ñaanalee suñ bopp mbokk yi nga xam ne ñooy déglukat yi minbarul islaam Eh, borom bi tabaraka wa taala dolli leen tawfiq ak mboolem ñi nga xam ne ñi ngi déglu waxtu di waxtaani diine yu am solo di ñaanal suñu bopp di ñaanal waa rajo dunia gépp rawatina ñi nga xam ne ñoo fi yore waxtaani diine yi rawatina nagati ñi nga xam ne siiwe nañ ci taxawe wetuk na ak di ci waxtaan di ko leeral ca nu mu gën a leere képp ko ci xam ne loolu mooy sab jataay moo la tax a jóg yàlla na borom bi tabaraka wa taala dolli tawfiq Euh, dolli la ak sax itam ci loolu képp koo xam ne itam xëy na li ngay wax ñàkkul ay njuumte yu ca nekk yoo xam ne dafa juyoo ak sunna wala dafa doon loo xam ne sax jombul euh, yaa nga ca wet ga ca des mu di wet ga dul sunna yàlla na la borom bi tabaraka wa taala defal tawfiq ba sunna leer ci yow nga del si ndax kat comme ni ko imaam Malik waxee sunna mooy safinatu nuux mooy gaal gi nga xam ne moo mel ne gaalug noox ga képp ku ci duggul moom doo mën a mucc kon képp koo xam ne jublu na diine yàlla na la borom bi tabaraka wa taala may tawfiq nga mën a dugg ci sunna euh, di tëjee loolu ma junj mujjoon ne moom la Abu Bakar as-Siddiq radiallahu taala anhu ak leneen ci saxaaba yi daan wax mm-hmm. moo di lii nu fi jot a wax lépp loo xam ne lu jub la ci sun borom tabaraka wa taala ak ci ngëneelam ci la jóge mm-hmm. waaye lépp loo xam ne njuumte la ci man la jóge ak ci seytaane borom bi tabaraka wa taala akub yonentam ñu ca set wecc lañ di ñaan suñu borom tabaraka wa taala defal ñu tawfiq ñun ñëpp ak sabaat ci dëgg gannaaw boo xamee ne leer na ci suñ kanam wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajmain kon nag euh, ñu ngi leen di jox daje incha allah seen mbokk Cheikh Tidiane Diallo nekkoon ci micro bi Ibrahim Khalil Lo ànd ak docteur Mouhamed Ahmed Lo ñoo leen doon defal minbarul islam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur